boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bës fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo wajjahtu wajhi liman akrimu maana bi sari mawlidi man asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk julli di mbokk taalibé yi yéen ñi bëgg barkeelu si liggéeyub taxawub jumawu Touba jëm si entretien wala maintenance wàccaayu màggal Touba dundal weeru koor dundal gàmm saytu armee lu baqiya yi taxawu personnel bi si wàllub social ak yeneen waa association nationale muqaddimatul xidma Espagne ngir indi ak jàppandal si liggéey bi si ndigalu sëriñ Afia Bousso imam mi jiite daayira bii ñooy yëgal mbokk taalibe yi nekk ci diaspora bi rawatina waa Europe ne nag mën na noo wéy di yónnee seen i barkeelu ci transfert bancaire ci compte association nationale Muqaddimatul Xidma Espagne ci CaixaBank numéro ES 17 21 00 15 11 87 02 00 500 647 Biki Swift CaixaBank BB XXX mbokk yi ku ci nekk ci Sénégal mbaa ci Afrique compte Orange Money yi mooy compte yi nekk ci moomeelu daayira bi di 77 77 696 86 17 képp ku soxla yeneen i leeral jokkoo ak daayira bii si numéro yi ñu bëgg joxe mosquée Touba 77 434 33 15 wala si 76 697 60 41 bu dee Europe jokkoo leen ak Serigne Assane Diop si plus 34 632 581 998 Serigne Fallou Dia plus 34 631 216 262 jumaay Touba ji nag Serigne bi nee na yàlla sunu borom may na ma ab tabax bu ne seng bu fi des ba aljana waxoon na it ne ku feeñ si liggéey bi. dinga di feeñ ba faaw yàlla nañu yàlla dimbale ñu mën di si jëf ba faaw te yàggal fi suñu kilifa gii Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ak mbooleem njabootu Serigne tubaa gépp jërë ngeen jëf alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi ñu bokk sant borom bi subhaanahu wa taala seer namul benn bët bu war a jaam bu moom noo ngi baalu àq ñépp te di leen baal àq tey ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu jéggal ñu ñun ñépp bokki sunu xutba tey mi ngi jëm ci al ittihaadu quwwatun wal furqatu duuf bennoo mooy doole waaye teqali ko bokk yi ku ne xam ne ak lompañ lay jural ña ko seq lislaam nag bi mu ñëwee dafa soññee ci ak bennoo waaye tere ak teqalikoo lislaam bi mu ñëwee dafa soññee ci ak miinante ak soppante bëggante waaye moytandiku ci ak juyoloo loole nag bokk yi ñu xam ne jullit jullit yépp ci kaw suuf saa yu ñu boolee seen bopp seen baat di benn dañuy gën a am doole ci lépp luñ bëgg ci seen diine waaye saa yuñ teqalikoo seeni kàddu teqalikoo seeni jukka teqalikoo seeni melokaan teqalikoo su boobaa jullit yépp dañuy néew doole moo waral noonu lislaam yi tamit su boobaa mooy waral ñu mën a song jullit yi mën leen attaqué seen seen ñàkk booloo loolu dana ko jur moo kon mu war ci bépp jullit bu ne ci kaw suuf ak moroomu jullitam ak bépp kuréel bu ne ci kaw suuf ak moroomu kuréelam ñu jéem a def benn say woo xam ne mooy tax ñu mën a lijjanti lépp lu ñu lijjanti su mboroom wax na ci alquran ne maa ngi leen ñuy dénk yéen yi na ngeen jàpp ci buumu yàlla gi ca bu leen teqalikoo waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu na ngeen jàpp ci buumu yàlla gi ci bu leen teqalikoo te buumu yàlla gi nag bokk yi ci bu dee ci jullit yi weesuwut alquranul karim ji nga xam ne mboolem ku ne ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu moom ci boppam moo la tënk la ngay def ak la du def kon loolu lu mat a bàyyi xel la abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu bi muy wax xam-xamam ci aaya ji dana i'tasimu bil jamaa na fexe ñépp doon benn ci biir mbooloo mi kenn ku nekk bañ a beru ci sa ruq rek lu la neex def ci biir diine ji wala loo neex def ci lu mën a doon loolee taxut ñuy wax waatasimu bi hablillah moo tax Abdullah ibn Mas'ud ne i'tasimu bil jamaa yenn ci boroom xam-xam yi wax ne suñ borom boo gisee muy digle ñuy bennoo ak a miinante di tere ñuy teqalikoo nee na teqalikoo goo gis alkande rek moo cay mujj waaye booloo boo gis rek mucc rek moo cay am kon loolee ñu ñu bàyyi ci xel yonente bi sallallahu alayhi wa sallam musta dañ di soññ saxaaba yi ak di leen ñaar ak di leen digal ci ñoom ñépp ñu doon benn cay booloo ci benn baat mooy waral suñu borom mën na jël seen kattan teg ko ci seen kaw mooy waral yàlla mën a jël yaddullaahi ay quwatullaahi yàlla mën a jël kattanam bu ko ci seen kaw lépp lu song man koo daan waaye su fekkee ne loolu amut su boobee mën nañu échec ci lu mën a doon moo waral fi abu lu tuuti rek kuréel gu tuuti kamil fi atin qalila galabat fi atan kasira bismillah kuréel bu tuuti rek ci bennoo gin bennoo mën nañoo not kuréel bu bari te loolu ku ne xam ne xaswatu badar gis ngeen ne jullit yee tolloon yéefar ya tolloon lu baree baree bari ay jun junni ak nangam waaye gis ngeen ban doolee seen bopp déglu ndigaleel yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ci saxaaba yépp daal di doon benn suñ boroon may leen ndam ndam loole nga xam ne boole seen baat ak seen bopp moo leen ko may huwa ay ayyadaka bi nasri wa bil muminina wa allafa bayna qulubihim boole gën boole seen xol ak seen lépp yàlla indi kattanam ak ndimbalam nag ñu daal di gañ xasatu badar waaye gis nga xasatu Uhud teqalikoo gi amoon ci jullit yi ci yonante bi sallallahu alayhi wa lam leen waxoon ñam tegoon ca kaw montagne ba ne leen lu xara bi tàng tàng bu leen wàcc bu leen def dara waaye wuutee gën wuuteeg ndigale suñu borom ak bëgg gën bëgg alal ak ñàkk benn néew googa tax na seeni noon gañe leen ci xasatu Uhud ma waral bokk yi ñu bàyyi xel la kon jullit yépp fi jamono toll li leen li leen war mooy benn noo ci seeni kàddu bennoo ci seeni wax damay wax ne kuréel yi nga xam ne moo xaw ci diine gi moo xam ay jamaat la wala ay muassasaat lan wala ay yeneen yeneen moo xam ay tariqa la moo xam lu mën a doon la leen war mooy seen ma doon benn baat mooy waaye tax lun lun jóg bëgg ko défendre ci lislaam man koo défendre waaye bu fekkee ne tafarruq dafa am kii nekk fële kii nekk fële kii nekk fële ngir ñu mën a représenter l'islam dëgg-dëgg l'islam day daal di jafe am jafe-jafe su ngeen gisee fan yi ñu génn juróom benn imaam wala juróomi imaam borom réew mi woo leen ñu dem wax la ni wax te su bëgg ku dugg ci réseaux sociaux yi mboolem ayima yi ci des ak firqa yi ak ak kuréel yi dañuy dal ca imaam yooyu na leen seen responsabilité bopp leen jël waaye yenn kuréel yi yónniwul leen yëgguñu leen ak lu mel noonu ca loolu nag bokk yi lu lu diine ji war a la ci kaw suuf ca diine lislaam ak lu la état di jox solde di la fay wala weeru dee lan lan lay jox mu jóge ca moom bu tax buy taxi dëggu yàlla gi nga di ko nëbb ndax dëggu yàlla gi kat ku alali àdduna tax doo ko wax boo léegi da nga ko réccu dëggu yàlla gi ku ak parparloor tax doo ko wax boo léegi da nga ko réccu kon donte ñoom ci état lañu état moo leen yor wala lu mu mën a doon waaye la leen waroon mooy ñu diisoog ña nga xam ne ñooy ay aima yi ci des laata ñuy dem ca borom réew mi mooy waral kon bu ndikkee bu ñu waxee ñu ci mën a nangu ca lañu wax kon loolu benn la ci boo xam ne ñàkk a bennoo doo koy waral doo koy waral moo tax su mën wax ne yéen jullit yi bu leen mel ne gaa yi xam ne danoo tàqali ko woon ba yàlla indee ci ñoom ak leer maanaam waxta ba suñu borom xamal ne leen maanaam da ngeen gañe xare bi su ngeen booloo waaye ñàkk teqali ko googu moo waral loolu lépp am ci ñoom ca ku ne xam na lislaam bi mu ñëwee dafa leeral lu bare bare nit munta dund moom képp lu dul dafa am nu muy dundee ak ak ak booloo kenn ku ci nekk yow dong mënoo dara misaal loo am alal alal soo bëggee tabax soxla nga maçon loo am alal alal dégg soo bëggee añ wala réer la wala ndégg soxla nga ki koy jaay moo waral jamono ji ñu toll damay wax ne état bi lii xew ci état bi jamono toll ci wàllu njàngale mi ci ñuy jàngale ñàkk a bennoo état bi ak jàngalekat yi ak syndicat yi tax na coow li bari mais état bi dafa war a xam ne ki ci bureau bi di liggéey muy ministre bi wala maire bi wala député wala ku mën a doon ci jàngalekat la jaar. ab jàngalekat moo ko jàngal mu am diplôme mën a am poste boobu kon priorité ci ci ci nguur gi ak lu mu mën a doon mooy jàngalekat yi moom dañ leen a war a fonk jox leen seen gëdd jox leen seen at ca lii nga xam ne chaque année mu am gewer bu bari bi donga yi bañ a jàng ñi ci bari di perte seen i lijaasa ci at moomu loolu gouvernement bi ci boppam war naa wal bëtiku gestuwaat ko loolu nag li ko waral mooy ñàkk a bennoo moo ko waral ñàkk a bennoo loolu nag war naa war xam ne moom li ko war mooy population bépp wëlbati ko doon benn ñaareel bi ci des mooy suñ duwal yi suñ réew yi muy Sénégal ak yeneen réew digg yi am kenn ku ci nag am fa nga yem su fekkee ne yow amoo ak bennoo ak sa réew mi nga séqal du ngeen séqub taal lañu ñu dal ñu nag Mali la ñu dal ñu nag Mali Sénégal ak Mali ñu ngi perte lu bare bari li ko waral mooy bari na doomi Sénégal yoo xam ne ñu ngi daan dund ci transport diggante ma ak Sénégal ba mu taxee ba nekk amatul bari na doomi Mali yoo xam ne ñu ngi daan dund ci transport boobu amatul ko li transport boobu doon doon indil biir Sénégal ci ay milliards Sénégal amatu ko kon yooyu ñàkk a bennoo moo koy waral ñàkk bennoo moo koy waral fan yii sax maa ngi dégg ñu naan ñaari président yi jokkante nañ téléphone nangam a nangam waaye li gën a gaaw daal li ñuy wax mooy ñoom nan wëlbatiku xool seen xel ca bennoo ca ànd al ittihaadu quwwatun wa tamkiin bennoo moo mën a moo mën a jur lépp ci kaw suuf bennoo tamit indi ak dimbalante. mooy indi ataqaddum mooy indi ak leneen ak leneen kii jaay faaw mu bëgg client buy jënd dégg loo dem boo boo lalee ca amoo ku la koo jaay sëñ bi ñàkk moo gën ci yow kon kii kenn ku mën a dund yow dong ci kaw suuf ne du ma am kenn koo xam ne moom laay ittihaadal wala moom laay bennool loolu bu amee bariwul moo tax diine bi ñëwee jël bennoo def ko quwwa def tafarruq mooy doof moo tax su borom ne wala tanaaza'u fa tafsalu wa tasxabareekum yéen jullit yi bu leen xëccoo bu di coow bu leen di bu ko defee seen kattan dana lañ moo waral penc moo gis ci kaw suuf kër goo gis ci kër laay tàmbalee kër ba ci néeg ba ci penc société dégg nga ñaari ñu ànd di liggéey lu mu bu ca ak benn amut ànd ba du yàgg ànd ba du yàgg moo waral bépp kër goo xam ne ay pàcc pàcc am na ca parti bi ànd na ñii ànd ak ñii ànd ak kër googu duñ ma sa ànd ci kaw suuf bépp penc moo xam ne tamit ay pàcc pàcc am nañ ci ñii faral ñii ñi faral ñii ñii ànd ak ñii ñii ànd ak ñii bu leen yàlla dimbalul ànd du leen yomb noonu la lépp mel kon ànd ak bennoo ci wax ci jëf ci lu mën a doon jullit yi kenn ku ci nekk dañ cee war a bàyyi xel li ñu esagal nag ñun jullit yi ci lu bare bari ba suñ doxful imaan am mooy ñàkk a bennoo moo ko waral ñàkk a benn la suñuy kaddu ñàkk a benn la suñuy jëf ñàkk a benn la suñuy gis-gis kenn ku ci nekk yaa ngi ca la neex jàpp ne la nga nekk mooy dëgg leneen la keneen nekk dëgg dëgg dëgg loola posé gi posé wu ci suñu réew mi ñuy dund ak jamono ñuy toll moo waral teqalikoog beeg coow yu bari yeeg yu mel nekk yu yooyu yëpp daal di am daal di am ci jamono jii ba ci opposition bi ak pouvoir beeg yu mel noonu li ngeen ci gis yëpp mooy mooy loolu jamono ñu jënd rek nangam ñi faatu na ci Sénégal ñii far fii ñii far fii ñii nàngam ñee di xeex ñee di nangam ñu ne ci nangam bëgg bakkan lu ko waral tafarru teqali ko te lu ñu teqale lenn am na ci loo xam ne intérêt personnel lay doon parce que nit ki bu fekkee ne moom daa bëgg moom da jariñu beneen doomu aadama bañ a jariñu kooku la bu dee ab jullit la ak ab jullit day bëgg ni muy jariñoo jullit yëpp mën cee waaye man képp keneen bokkul ab jullit di def loolu ab jullit ma dafa bëgg li mu bëgg ci ab jullit mooy nay jariñu moroomi jullit tamit di jariñu moo tax su borom wax ne kon bu ngeen xëccoo rek dangay dem ba échec lislaam bi mu ñëwee dafa jël jullit yépp def leen muy benn mbokk innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum jullit yépp ay bokk lan tiijaan beeg xaadir beeg laayin beeg zaaziliyo beeg naqsabanna beeg ñoom ñëpp kenn ku ci nekk bu di ba nga ne ashhadu an laa ilaaha sa mbokkum jullit nga léegi nag loolu fi tollu nii dem nan ba jamono yi ñu toll kuréel yooyu ci seen biir sax am ay tafaroo ak i gis-gis ak yeneen ak nangam te ginnaaw lislaam moo ñu boole ku leen woo ngir lislaam dem leen ku leen ku leen ku leen sant ci lislaam te lépp lislaam dem leen ngeen doxe loola ngir lislaam moo moo taxoon lislaam aqidaam ju wér jooju daf ko saxal diine ci diine lislaam muy benn jël jullit yépp daf leen ñuy benn sant leen nañu ñu yàlla jaamu gu sell gu ànd ak jukko yu kawe moo war a suñu bi mu def ñu ñuy umma waaxid umma waaxid muy benn xeet boo xam ne ñi ñi wax ashhadu an laa ilaaha illa ñoo ci bopp ca xeet woowu nag bi ci gën mooy xeet yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas lay tax ñu gën nag mooy na ta'muruuna bil ma'ruuf wa tanhawna anil munkar moo tax yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ci li ñu mujjante la ci xutba bi mooy xutba bi yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam defoon ci ayaama tashriq mooy gannaaw tabaski ba mu waxee ne ee yéen ñi yaa ayyuhan naas ee ñi seen borom benn la dog ju jullit nit ñépp ñoo bokk benn borom ñaari yàlla amul jenn yàlla am ku wutal yàlla moroom it yaa ko wute waaye suñu borom benn benn la qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad kon inna rabbakum waahid wa inna abaakum waahid benn baay ngeen am muy kan aadama ñun ñépp faran sàq ko aadama ak ci lañ soqi ko benn bàyyi lañ am benn buur lañ am ma waral waykat ba ne woon nit bu dikkee di la puukare wu naan nii laa toll nii laa mel fa in atayta bi faqrin fa tiin wal ma xamal na ko yow suuf ndox rek ga suuf ndox rek ga benn bàyyi lañ am muy aadama benn yaay lañ am muy xawaa kon xubba boobu yonent bi sant leen seen borom kenn la seen bàyyi kenn la muy suñu borom laa fadale arabin wala ajam ab arab gënul ab wolof ab wolof gënul ab arab nit ku ñuul gënul ku weex nit ku weex gënul ku ñuul ñoom ñépp la ñuy ma mooy bi bi taqwa ndax ragal yàlla képp la ñuy gënante loo bokk ci askanu sell loo bokk ci askanu baax lu sa baay baax baax lu sa maam baax baax ca ragal yàlla dëgg dëgg ragal yàlla amul ci yow amul njariñ li ñuy gënante nekkul ci ay oto nekkul ci ay kër nekkul ci ay jongama nekkul ci alal taqwallahi la nekk ragal yàlla ci la ñuy gënantee kon kenn ku nekk ci ñun na jéem def ci xolam ak ragal yàlla moo tax benn kilifaa ngi ni boo xam ne bi muy dafa woo ak njabootam wut benn takk benn ay ah, maanaam takkub mën naa ko tudde takku mat wala xeej teqale takk ba jox leen kenn ku ne leen damm leen kenn ko damm sa mu boole waa takk ba na leen damm leen kenn ku ne damm damm mu ñu ñu damm mu ne leen sama gannaaw su ngeen bennoo comme nii dara du leen mën a dara waaye bés bu ngeen teqalikoo comme par benn yeeg lu leen lu leen jugal leen dara bokk yi loolu mooy mbir mi kon kenn ku nekk ci ñun na def na moroomam boppam moo tax mu ne waleen kuunu jamian yaa bunayya isaqtara xatabun wala tatafarraqu ahada bu leen na ngeen doon benn benn na ngeen doon maanaam mbooloo bu leen def mukk mel ne kuy teqal maanaam matt yu ko wala kay gi ma teqalikoo ndax bu ngeen beroo kenn ku nekk ci yéen mën naa dagg bosam te ab barrima isactamaana takassura wa isaftaqarna takasharat afrada ne bu ngeen boolee nag say wi wala ngeen boole xeej yi saa yu ñu ko bëggee damm yéen ñëpp kenn ku nekk du ngeen ko mën a damm loolu mooy union la force kon jullit yëpp war na ñëw mën a góorgóorlu doon benn di yëkkanditoo di jigandoo kenn ku ci nekk fa nga nekk sa kër ngeen fexe njaboot ga doon benn dégg nga penc ma doon benn yitte ya doonte ne mënut nekk benn waaye kenn ku ci nekk na nga jàpp sama morom benn benn benn waaye nag ñu bañ a ñu bañ a wax ne benn lan ba noppi suñ génnee di jëwante ak a xasante ak a waxante lu ñaaw tax si buum jamian xulum sata mbooloo yu bari loolu fa am mbooloo yu bari dañ leen gis ñu niroole lépp waaye bu génnee di lekkante kenn ku ci nekk di jëwante sa morom alquran nee na taxsibuhum jamii'an wa quluubuhum shatta kon loolu nan ko moytandiku te doon jéem a doon benn di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bokk yi sunu kilifa gu màgg gu tell gu fi jóge léegi sëriñ Cheikh Malick Diop moom sëriñ Malick moom sëriñ Amar borom penc mi mu wàccub liggéey ñu fas yéene ko incha rabbi waajal gannaaw tàkkusaan di ñaan yàlla képp koo xam ne mën nga caa dem nga dem ca te gunge ba kenn ku ci nekk nga ñaanal ko njëggal suñu borom subhanahu wa taala jéggal ko nit la koo xam ne jukkaam melokaanam doxalinam jëf yinam murid loolu ñun ñëpp mën na ko seet benn jukka la amoon xam ne suñu borom sedd na ko ku fonk bokk la ku bëgg lu baax la ku am ngërëmal ñi fi jaaroon na ci ay wax ay kilifaam la kon kooku la murid sadiq la yàlla nañu ko yàlla fayal aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin amin istawu istawu boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mboolem vidéo yi fi bàyyi ko wajjahtu wajhi liman asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk julli di mbokk taalibe yi yéen ñi bëgg barkeelu si liggéeyub taxawub jumaawub Touba jëm si entretien wala maintenance yu màggal Touba dundal weeru koor dundal gàmmu saytu armée lu baqiya yi taxawu personnel bi si wàllu social ak yeneen waa association nationale muqaddimatul xidma Espagne ngir indi ak jàppandal si liggéey bii si ndigalu sëriñ bu Bousso imam mi jiite daayira bii ñooy yëgal mbokk taalibe yi nekk si diaspora bi rawatina waa Europe ne nag mën nanoo wéy di yónnee seen i barkeelu si transfert bancaire ci compte association nationale Muqaddimatul Xidma Espagne ci Caixa Bank numéro ES 17 21 00 15 11 87 02 00 500 647 Biki Swift Caixa Bank BBXXX mbokk yi ku si nekk si Sénégal mbaa ci Afrique compte Orange Money yi mooy compte yi nekk si moomeelu daayira bi di 77 696 86 17 képp ku soxla yeneen i leeral jokkoo ak daayira bii si numéro yi ñu bëgg joxe mosquée Touba 77 434 33 15 wala si 76 697 60 41 bu dee Europe jokkoo leen ak Serigne Assane Diop si plus 34 632 581 998 Serigne Fallou Dia plus 34 631 216 262 jumaay Touba ji nag Serigne bi nee na yàlla sunu borom may na ma ab tabax bu ne seng bu fi des ba aljana waxoon na it ne ku feeñ si liggéey bi. gi di nga feeñ ba faaw yàlla nañu yàlla dimbale ñu mën di si jëf ba faaw te yàggal fi suñu kilifa gii Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ak mbooleem njabootu Serigne tubaab gépp jërë ngeen jëf